tey balu xaq ñëpp yal nañu yàlla boole jéggal tomb bi ñuy fàttalante dañuy xamle ne islaam mooy diine ji nga xam ne euh, bu doon jëmm ji dox nga di ko séen muy dem walla muy ñëw doo mën a wax ne daa jeng jëm ndeyjoor walla càmmooñ waaye day jub xocc du waaxu ba kenn du ko mën a dab waaye du tempit ba ku jóg dab ko jàll waaye day tax doxin woo xam ne ku ne mën naa ànd ak moom ku mu jafe ci yow mu nekk la ba ba ngay mën a agsi sa moomu nag ci am njàngaleem dafa santaane ñuy sakkanal te bañ di pasar pasar yi sakkanal safaanam mooy pasar pasar pasar pasar nag bu dee ci alal mooy weesu fa jaadu rek mooy weesu fa lajaadu la lu boo ko weesoo yaa ngi pasar pasar su dee ak lekk moo tudd ñoq ñoqal suur ba noppi xel mi na ci te amatul fu ko def muy tibb tibb yu sew ak a mar loxo yi ak a ñiitaatu loolu nag jikko la joo xam ne yàlla dafa tere muy pasar pasar ndax bu ñu demee ci alxuraan dañuy euh, mi ñuy wax ne ñi nga xam ne mooy seen seen doxin dee leen xool bu ñu fi yàggee da nga gis lu mu leen wàññi wa ahlak na al musrifin maanaam lañ yoroon da dem bàyyi leen fa ñu sonn lu yàgg gannaaw bi wala boog ñoom ñu dem ba fa dese fa am lëj muy kenn du mën a lijjanti wala boog bala si ko lijjanti ay aj yu bari la ñii dina ñëw ba dem ñii ñëw ba dem te kenn du ko mën a lijjanti te am na fi wax ci alxuraan sax tuddaale ci kàccoor ba wu ñuy wax firawna na wa anna al musrifina hum ashabu naar yal nañu ci yàlla musal mooy daf daan pasar pasare lu lu nekk rek mu ëppal ci lu nekk mu ëppal ci ba ci pas-pas yi ba ci pas-pas dem ba moom mooy yàlla far nag tere na ba tere kuy pasar pasar yi pasare alal ba ci buy génne asaka sax buy génne asaka sax nee na génn leen ko ci alal ji ta bañ pasar pasar yi mooy génn la ca gën loo xam ne da ngay màtt sa loxo sànni moo tax ñuy jàngale ne kuy génn asaka na seet la diggu doomu ci alal ja bu mu doon lam ca gën a bëgg bu mu doon lam la nga xam ne ku mu ko jox doo ko soxla waaye na doon loo xam ne ku ko jox dana ko soxla doonte moom mën naa am lu gën loola wa aatu xaqahu yowma xasaadihi wala tusrifu yonent bi sallallahu alayhi wa ne ku dem ba tiim aw ñam sax bu mu ca ñoq ñoqal na ko fa bàyyil keneen wala beneen buy saraxe it noona bu mu jël ab lépp saraxe ko keneen ñëwaat mu taxaw di xoole di tas yaakaaram waaye kuy solit na nga sol mbub mu baax te bañ a ëppal ci am col am na ci mbokk yi ñoo xam ne lañu sol ku ko jaay ci jamono ji ñu toll man a am tabaski mu baax waxuma mbub ma de waaye dàll waa ma tax di wax wala mbaxana ma wala boog lam solal téléphone ba mbub moom solal téléphone ba rek kulu wa tasaddaqu wa albisu fi gayri israfin wala mughila ci melokaan yi nga xam ne yàlla daf koo joxoñ euh, bëgg caa jàngale nit ku yiw ni muy mel tudd na ca ñoo xam ne la leen war buñ koy def it duñ ca pasar pasare du leen ca fekk Euh, bu ñuy joxe dépasse dañuy seet la jaadu te baax waaye duñ ca pasar pasare waaye buñ demee ba àgg ci lu mel tabaski gi nga xam ne moom lañ jubit wala xew wuñ mën a jub te alal di ca war a demit duñ ca ëppal dañ cay def la jaadu rek xam ne bis bu mën a doon bu dee benn bis la ci at mi jërut yenn yi li ma ne lislaam ku mënta doxee ni muy doxee day taxaw nit la mooy kenn ku ci nekk ak fam toll lay waxe ak moom mooy fi alxuraan di wax ne walladina ida anfaqu lam yusrifu walam yaqturu am na nañu jàng lam yusrifu walam yuqtiru mooy ñu jàng wars sakkanal nag ak lu ci nekk nga def ca la ca la yam mooy yoon wi lislaam joxañ ñooñam loolooy tax li ama ku si néew ci alal man a yaatu waaye kenn ku ci nekk lam ca yor ku si néew lu bari des lu mu ca yor pasar pasaree ko bala waroon a dem ca ñam waroon a dem ñu di ko nekk duñ ca jot yàlla ñu yàlla musal jóg jikko loolu jikkoy lislaam moo tax yàlla ne bu leen téye seen loxo ba kenn duutu am ci yaakaar ci yéen diw du joxe du joxe kat bu leen banque seeni yoxo ba kenn duutu am ci yéen yaakaar ni yaakaar joo mën a am bay boo nga teg gi diw ndax du joxe kat loolu musiba la waaye bu leen pasar pasar it ba doo yor dara ba ñu la war a yaakaar bu ñuy doo am loo leen joxe tam wala tajal yadaka maglulatan ila unuqik wala tabsutha kulla albasti fa taqauda maluman mahsura moo tax suñu demee ba toll ci jamono yi li nit ñi waxtaane ci tabaski wala korité wala xew yi nga xam ne xewi lislaam lu mag la adduna bépp bokk ko daa ni nit ñi miin nañ ko miin goo xam ne gii buñ ci dul jël ay tomb yu sew dinañ ko fàttali danañ def ba pasar pasari ca wala ñu ñokk ñoqal ca euh, jamono yi ñu toll léeg-léeg nga dégg ku ne diw jox na diw xar moo xam ni mii bëggu ca juróomi million bokk yi juróomi million ci am tabaski xanaa daa am lu ca làq waaye loolu tut mi yàlla doon wax ne lan yanaala llaaha luhuumuhaa wala dimaa'uhaa juróomi million ñaata xar la mën a jar yoo xam ne kenn ku ci nekk boo négee ba guddi nga fekk ko fa mu nekk fëgg ko yeew ko ci buntu ba dem ñaata la kookee ku ko fa def ba dem la muy fas ci xolam yàlla rekk koy xam waaye kenn du ko gën a sant waxaale wuñ ñi nga xam ne am nañ tuuti luñ denc bëgg ko mottali te jamono ji neexul jamono neexul li ma ci mooy am na ñooñ tabaskiwu ma ren dara ci àdduna jëralu leen ko donte lislaam tegu leen ko ku ko mënul mu wàcc na la waaye teewul am nañu leen fay jéggi di pasar pasare alal jënd xara juróomi million xari ñaari million xari xarum téeméeri junni sax ëpp na ci réew mii si ñu nekk di ko jox ku man a doon nag ku mën a doon euh, moo tax duñ yedd ñi koy jox yàlla nañ ko gën a man waaye am na kuñ koy jox koo xam ne kii bu leen wëlbati woon wan leen lu ñuy def dañ ne cocc ci yoon wa xam ne foofa du fa kon am na ñuy fab alal ju bari di ko ci def loo xam ne jéggi na dayo weesu na fay waroon a yam ngir lan puukaréew ñu di ko waxtaane ñaareel ba ngir njistal am na ñu ñu koy jox ñoo xam ne bu ñu ko waxatut ñu bàyyi am na ñoo xam dañ koy wax ngir dégg seeni tur maanaam foofa siiw na fës na ku fa dem boo fa joxee lu ñu toll dana siiw kese wala boog lim joxe ren kenn mësu koo joxe kese loolu nag yàlla moomu ko jëmut ci yàlla yàlla taxut su ëllëgee su bëggee ku ko fay na ko wuti te moo ne jamono yooyu bokk yi day mbooloo ngi nii moo xam ne waxuma la xarum ñaar fukki junni waaye ñoom lu ñu reere biig sax wuñ ko seen kër amuñ ko biig te yaakaaruñ ko aña tey ñu ngi ne gàññ am na ci ñoo xam ne nawet bi ñu toll dañuy ñaan ndox bañ a laal suuf ndax amuñu fi ñu nekk am na ci ñoo xam ne fañ nekk nam mën mel mën nañ faa toog xaar yàlla waaye amuñu ndox muñ naan ñuy jël lu toll noonu di ko jënd ay xar yu cher waxuma cher sax ndax loola lu mu jëkk loola jaayul lu cher mooy lu jaayul loolu dafa jaayul ndax ña koy waxale dañu bari ñu dajale ko di ko yóbbu foo xam ni fii kooku yëgul li xew defe na ne ñépp seen mbir fajona seen aajo fajona bu gisee mu bari rek day defe ñépp a ko am moo tax suñ ci àggee mat nañuy fàttali ñi ko man ñu xam ne am na si ñoo xam ne amuñ yaakaar ne ren jii danañ defar mu tabaski xamuñ fi ñu koy jële ñooñ ñu mat a geesu lañ te ñooña am na ci ñooñ ci ñi ma wax lañ bokk amuñu fi ñu dëkk ci noor bi lañuy nekk seen kër waaye bu nawetee bu ñu xoolee asamaan si ñaan yàlla mu bañ a suuf bañ a bañ a taw am na ci ñoo xam ne ndox muñ naan amuñu ko saa boo fa saa boo leen rombee ña nga tegal ay bërigo yoo xam ne yi doo xam dañ koy yaru xamoo dañ koy def ci sareet te loolu réew mépp mën nañ ko bokk dëkk bu mag boo dem ci réew mi am na lu mel noonu ñu mel noonu kon yit yi mën naa bañ a jéggi dëkk ak dëkk di dem euh, ñi nga xam ne it xaw nañoo am tuuti ba mën a dawal dese borob lu yoo sa ngi leen topp ñooñu it ci ñu war a dimbali lañ bokk moo tax bu ñu xoolee pasar pasar ji am ak puuka réew bi am ba noppi ñu di ñu di ci séentu ngërëmul suñu borom loolu naxaate la waaye ñañ waroon ña waroon téye loxo yi yoxo yi naan bàyyi leen li ngeen di def ñoo koy jiite moo tax suñu boroom ne réew mu bëgg a teg fitna day fab ñu jiitu def leen ñoo xam ne wala boog ñu jaar yoon woo xam ne da cay maandu ñu doon ñoo xam ne ñii puuk réew la ñuy doon ñii gis seen bopp la ñuy ngan ngan la ñuy doon ñuy tiitaru lañuy doon ci lu xew rek ñu waneewu ca ba ne ga ba ne fàng su boobaa la muy jur mooy añaanante day tàmbali ndax diw mbëkk dem mii nga xam ne fi la juddoo fi la wate mbooxam am fi lu toll nii day am ñu ko tàmbalee iñaane jikko yu sew tàmbale judd yoo xam ne ci puus réew boobu muy def ci kanam nit ñi rek ci la nit ñi amee ci ay bàkkaar su boobaa moom itam mu xeeb ñëpp defee ne da leen a gën a yeew wala da leen a gën a farlu nee na su boobaa nag noonoo judd goo xam ne gii ci la réew miy doxee ñu féewaloo ba fow lu leen yëkkati yomb lool lu leen wàcc ci yomb wa ida aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha fa xaqa alayha alqawlu fa damarnaha tadmira moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen sakkanal ndax nit kët bu fekkee am na fu mu bëgg a àgg la muy amakus néew na ca def la jaaru dimbale si ñu mën a dimbale la ca def mu bàyyi ko fa dem na ba àgg ci nee na kuy jàpp ci wetu kuy jàpp ci ndoxum géej gi sax kuy jàpp ci géej gi ndoxum géej ni mu bare bu mu yàq ndox ma eh, am ñu naan géej ni mu bare lu koy mën a yàq waaye loolee mu fa pour ko mu seey ci suuf si am na ñeneen ñu mën ñëw jàpp ta su ko fa bàyyi woon géej géej gi li muy bari bari lu ci jóge du ci delluwaat nag géej gi li muy bari bari lu ci jóge du ci delluwaat te yonent bi na ne ku cay jàpp sax bu mu pasar pasaree ndox ma na mel ne ndox moo xam ne da ko rooti naan war ca mu di ca jàpp euh, al qasda al qasda tablugu su ngeen sakkanalee sakkanal sakkanal dénk na leen ko te bañaar pasar pasar yi su boobaa fu ngeen bëgg àgg ma ngeen faa àgg kon boog pasar pasaree alal yàlla nee na mu ne su ta wax ba mu bëgg seeni borom wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ba ci garab yi nga xam ne sax day meññ ngi di ko jëfandikoo yi nga xam ne daa nekk ci àll bi kenn moomu ko yàlla nee na fu ngeen ca fekk bu ñoree sàkk leen ca sàkk bu dee garab yoo xam ne nag nite ko làkk wala mu miire ko ñu ne diwa moom fii ku ca jël te joxula ko sàcc sàcc ak sàkk fi muy waxee ne kulu min samarihi ida asmara garab gu ngeen fekk mu meññ te nekkut ci toolu kenn nekkut ci kër kenn sàkk leen ca lu yam la ngeen di soxla te bañ a dagg loo xam ne du ngeen ko xam ne ngeen koy def bu ngeen ko sànnee bu ngeen ci jëfandikoo bu noppi sànni bokk yi bu ñu ko seetee aw xew bu jàllee fii ci dëkk bi ñaata sën lañuy romb yoo xam ne lekk yu mucc ayib lañ fa tuur yoo xam ne bu ñu ci toggoon lu yàmb la ca des ñu jox ko ñeneen ñu ko munta am ñu jëfandikoo ko jal yaa du bari noonu waaye jal yoo xam ne lépp a neex a xool waaye kenn mënatu ko jar jariñoo ndax forox na ba noppi loolu nag la tudd dangay ngay dégg kuy wax ne sëñ Abdoulaat moo ne woon balaa kenn man gan ci raxasu mi la koy la ko ngeen nga di xamee da ngay tànk par ndox tegal ko jubluwul ndox mii nga xam ne moom la ñuy naan ndoxum mbégte mu wóor ko ne tey dana añ añ bu ko lew ngay ree ci kanamam di wax lu ñorog lu ñorul lu jub la wax waaye waxu tànk paatam ndox goo xam ne gii dañ cay def loxo yi mu tilim ñu ñu ñu suur ko ndax kii wax ne Touba toll na jamono yoo xam ne ku kuy sebet da koy néggandiku boo noppee ma ne mën naa la cee may tuuti la ci des ma jox ko saak jur ku ne xam na ne mënut a diglewaat paanoog ndox gu ñuy tagal gan bu di ci raxasoo moo tax pasar pasar yi yàlla da ko bañ lool kulu min samarihi ida asmara wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin wa aatu xaq wa yowma xasaadihim wa jatagi des na pasar pasare ci am col junj naa ko mbubb moo xam ne mi mën na caa solal fukki ndaw ak lum néew néew juróomi mag ni moom sol lu set lañu wax te jot te rafet rafet rek waaye àggalewuñ ko fenn fi alxuraan digle na ko kere ko ca pasar pasar yaa bani aadama xudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu zina mooy wàccaay rek euh, sëñ bi mi ngi ñaan ne fu fu mu fu mu mës nekk rek yàlla na soppali ko dëkk bu mës a jar wajaal buyuti kullaha masajida kon ne nit ki sol lu set lu rafet di lekk di naan te bañ a ñoq ñoqal te bañ a pasar pasare alal ci am col ak i xari tabaski wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin moo ne des na pasar pasare it am na ñoo xam ne lu yomb ñu ne baaxul duñ ko waxaale ba di ko jënd lu kenn munta am lañ naan lañuy ñuy jéem a waxaale mu jaral leen ñàkk seen alal jépp ngir am ko ñoom kenn kese dana am ci tabaski yi xare tabaski yi danay am ci li ñuy sol junj naa ko waaye danay am ci ay dàll dàll woo xam ne moom képp moo ko am te bokk yi aw dàll amul njariñ am na fa boo fi dugg dañ naan la summiku donte lislaam tëral na ay xeetu dàll woo xam ne ku ko sol jëru nga di ko summi fenn waxuma la di ko summi sax waaye mën nga koo julliwaale waaye bokkut ak yi may waxtaane nag ndax ñi may wax nii dàll wu ñu julliwaale ñoru leen waaye wu ñuy toowaaleetoo di ko di wàlli di daan moo leen tax a jóg moo ne xam-xam it des na ca pasar pasar mooy lu ñor nga wax lu ñorut nga wax te ku ko sóobu wàccu ko day mujj la may wax dootu am benn njariñ maanaam li ëpp di suñu ko déglu ndax dañ koo miin bokk yi ku soog a dugg ci ëpp néeg gaz nekk fa buy buy boo xam ne ma ngay sànn dana ko xeeñ waaye su fa nee jàng ab di dootu ko xeeñ waaye ma nga yàq la muy yàq moo tax yu bari yuñ tàmm defatuñ ko muy dara day mujj di ñu lor te ñu yëg ne mi ngi ñuy lor pasar pasar yi ku ne bëgg am turu diw mu def ci tabaski gi lim def ci xew sàngam bi colom ma dàllam ya téléphone am ba téléphone bi sax day bokk ci col mi léegi ak mbaxana mi ak lonet yi muy takk ak kurus gi mu yor lu ci nekk di alal ju bari kon tëbësi ak jaamu yàlla la sant ci yàlla jàng ci pas-pas jàng ci wéeru ci yàlla te doyloo ko euh, te xam ne loo am yàlla la ko jox lu way amit lu way ñàkk da koo soob moo gën ci moom ñu fàttali ne bokk na ci pasar pasare ci wàllu tabaski moom di jox ministre walla député xarum tabaski pasar pasare alal la ndax oto ba nga koy teg di ko yóbbu rek ka koy dawal soxla na ko dëkk yama yoroon mu ñëpp ko soxla te am na si ñoñ bu ñu leen ko joxee tabaski ñëru leen dañ koy yeew ca pénc ci digg mbedd ma ku romb gis ko mu naan xar mii diw moomu ko yónnee kon yàq day romb gan yàlla noonu yàlla defal dëgg topp te sellal suñuy jëf tañ xam ne pasar pasar yàlla dafa laaj jàmbi ëllëg yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ñeenta ngi ne yoo xam ne ëllëg yàlla dana ko laaj jàmbi bokk na ci ak dund ci loo ko jeexal ak alal ji foo ko jële ak loo ca def ak loo ca def lam cay def nag la ko ci la ciy gën a ñor suñu boroom mooy la ca yàlla lam ca moom moom ndax fi mu toll nii tey e, ku dem fu ñu woote ne ku ñu sàccoon nangam ñëwal ku fa dem bu fa gisee àllam àllam dong lay jël bàyyi fa keneen àllam moo tax lu waay di def ëllëg la ci yàlla soxla mooy la yàlla tax waaye la ca keneen moom da koy boole kooku te kooku mbokk yi du amuk fay